asalaamaaleykum mbokk yi man Seydou Wade man maa ñëwoon di indi tuuti ngërëm euh, ci vraiment li ñu ministre Mabouba Diagne defal fii si Mbane euh, ànd ceeg euh, Yacine Fall mi nga xam ne mooy ministre des affaires étrangères dëkk Mbane safoo Mbane bëgg Mbane ñu defal ñu réaction bu gaaw a gaaw a gaaw nga xam ni fii machine yi sunu machine yi nga xam ne ñoom ñooy xëcc ndox mi di ko yóbbu si tool yi amatuñu woon lu ñu xëcc ndaxte Lac de Guiers bi dafa wàccoon canal yi nekk comme ni ngeen ko gisee nii amatul woon dara ci ndox euh, ñu ñëw indil ñu ay machines yoo xam ni dañuy ñëw euh, si lu gaaw a gaaw a gaaw ñu indil ñu ndox moo xam ni vraiment euh, dinañu man liggéey machine yaa ngi nii ndox maa ngi nii ñëw. Ah, yal na yàlla yàggal si taxawaay kontaan nañu lool lool lool Ousseynou Ko yal na la yàlla fay kontaan nañu lool macha allah. waaw lii da lañ doon wut ay at ay at sunu maam sunu baay wax dëgg yàlla ñun sunu génération ñu koy soog am am wax sunu xol seet lool lool lool lool lool dex gaa yi ñu tàgg nañ jéer ji macha allah général bi nii daw macha allah lii lañ doon jooy ci ñun bëggoon yàlla defal ko di sant yàlla baax a baax baax wax dëgg yàlla sunu xol seet na vraiment vraiment kontaan nañu lool lool lool jibi chauffeur ñu ngi gërëm bu baax jibi jibi ñu ngi gërëm baax chauffeur bu laa biir wax dëgg yàlla waa yàlla yàgg taxawaay vraiment wax dëgg yàlla kontaan ah, jooytu nañ ko nag fu ne waane ci ndogalu suñu boroom ak si nguur gi fi nekk kanaal gi buñ ko créé woon ba léegi masul ak si fii tey ñii fi doon ñii ñëpp ñu ñëw tey ci la ñuy tedd. rafetlu naa franchise disque discussion yi nga xam ne ni am nañ ko fa ah, njort naa ne ah, pexe dana am. ci wàllu bor bi nga xam ne rek ñoom état bi ameeloon nañ ko ñoom opérateur yi daal ñi ngi rafetlu bu baax ñi nga xam ne rek premier ministre jël na ay dogal ba ñu fay leen ko ci anam yu jaar yoon loolee moo tax rek ñu jël beneen engagement ngir campagne bi ñu jëm ñu mën ko amal ci anam yu jaar yoon. li nga xam ne si premier ministre waxoon na ko muy nañu fay arrière yi 41 milliards mën naa confirmer ni 37 milliards yëpp fay nañ ko. léegi mën naa dëggal loolu. que tamit dëggalaat ni 3 milliards 800 yi ci des. Euh, mardi ñoom yónnee nañ ma kayit ni danañ ko jox trésor pour que mu dugal ko ci compte yi kon mën nañoo wax ni le quarante et un milliards yi nga xam ne premier ministre joxoon na instruction ministre de la ministre de l'agriculture wax dëgg yàlla def na ko nam ko ko waxe woon